Touba waaye nag bu ma sañe nit nga gënnoo leeral maanaa na daa solo agit aw meloom dafa xeesan wala dafa ñuulan wala dafa amoon taxawaay wala dafa doon digg bi yooyu daal wax dëgg ci nitaal ni na ko gisee xam nañ ni lu weex lay sol def kaala gu weex bokk téere bu ñuy wax ni ne fulku waaye loolu lépp daal ci nitaal moo nu ko wax waaye yow mi nga xam ne daal xam naa ne borom Tuubaa wax na nga dégg jëf na nga gis liggéeyloo na la ñax nga fi kanamam loo na ci wax daal loola moom la ñuy fay bor. jërëjëf sëriñ Tuubaa day daanaka mbiram lépp ay kaawteef la. li mu gën daa def nag daana soli dara waaye bu ko solee ba noppi day fabi xaftaan teg ca fab ñaari xaftaan teg wala mu fabu jàlla bi teg ca noonu la gën daa soloo ay yére yi mit daawul nangu muy wotu lu mu daa loolu bari it moo ko daa defal bopp boppam diggante toggaataay ak ak léeg-léeg a mas noo toog ak moom sax moom mii sëriñ Tuubaa mu daal di fabu kastu lool daal di fabu furni teg ca daal di fab matt teg ca noo nga toog ne rek jàpp sunu njaamul mu daal di fab Euh, tuuti ci lay doon daal di ko ay laax fab tuuti ci sanqa laax ko ca daal di fab loxoom yu tedd yooyee mu daal di fab daqaar jëmm ca daal di koy us di ciy def suuf ko daal di du mooyu laal ci ñaari cib daal ko jox daal di wax ne xam ne nu ma ci jublu ne ko déedéet mu ne siit naa jibi dafa dikk léegi ne ma sunu borom nee na ku la liggéeyal dinaa ko jëriñ may liggéey sama may liggéey sama bopp ngir bëgg a jëriñu sëñ Tuubaa jëmm ji lépp ay kaawteef la gis sëñ tubaa lépp lépp lépp lépp ay kaawteef la mujj na sax dafa déggu suñu borom ba nga xam ne ndax toog nanu baraag boo xam ne bii dafa def ñeenti néeg ca biir ah booba nag sëñ Issa Dieng moo ko kumaanal ba ah, moo ko bañ bañwaar yooyu bañwaar yi war naa man ne fukki bañwaar ak yaar ñu daal ko ko taatanal mu wax ni malaayika yi dañoo tedd sëñ mën numbi mi moo ko wutal ay barigo yoo xam ne yii barigo bu ci nekk war naa mat ñeenti meetaru yaatuwaay ñu di ko taatan ndox ma di ko ca muy dugg nag ci néeg ba bañwaar ba lonku ci mbubbam fekk booba bañwaar bi dañu ko taatan ci guccuur bi mu di ca fabub téere fekk dafa sole dara ba nag solub xafta sole xaftaan xam nga boo solee dara sole xaftaan ne xarifeen ne dara yi day lëng naka muy dugg ci néeg bi bañwaar bi ko ci xaftaan yi ci ci ci ci ci neexarteen ne dara ji mu ne ko direet ba mu àgg fa mu baaxoo ne mu bàkkoo fa noor kunnu laa dugg ci néeg fàtt ci téere dellu si bind naka muy bind mu daal di def sat sat sat ndox yu dëgër dëgër dëgër dëgër ci kaw seng bi mu daal di wàcc mu ne lu mu mu ne ko day taw mu ne malayka yi ñoo seen ma ñoo di bañ waa bi butu bi ñu ne naa soxlam ndox waaye sëñ Tuubaa noonu la mujjoon noonu la dégg woon ak sunu borom sëriñ Tuubaa li mu nekk woon ci àdduna yu am yitti mënuñu ko fee nekkee suñu ko doon liggéey mu booy ndax da ngay seet mbo taalibe yi li ñuy bari bari bari loo bari bari xasida dem ci kër téere taalibe ba gën a néewee xasida yi ci xasida ko amul te lépp moo ko njëkk bind te lu mu guddi guddi ak lu mu bëccëg bëccëg ak lu mu liw liw liw suñu noddee sëriñ Tubaa taxaw njàpp mu tooy te sëriñ Tubaa du sol yére mukk wax ci ay nit ko àdduna jullee ko waxtu waxtu wu nekk njàpp mu yees ak póor mu yees la koy jullee na nga ci rekk loolu da nga ci sëriñ Tuubaa day bind rekk di sànni te li dari ba Màkka ak Madina kenn du ne lii ko defee woon nii ah, te nji lu lu sëriñ Tuubaa boo bindee ba noppi danga ko jox sa ñoo ko lu ca mat a defar ñu defar ko lu ci la defar ñu bàyyi waaye sëriñ Tuubaa day bind rek di sànni fii ba Màkka ak Madina kenn du ne lii su ko defee woon nii moo wàllu sëriñ Tuubaa li mu nekk woon ci àdduna junniy nit junni nit suñ ci amoon ji yooyu duñu ko mën ndax mbooloo mi ko daal dikkal lu ñu bari bari bari bari kenn ku jóg fi moom sa xol day sedd guy te te ay junni junni lañu ñu daa doon am na bis boo xam ne bii dafa génn naar yi dañu naa suñu dee bàyyi ko gànnaar ku ne la ngay seet laay alxuraan ja tolloog sa soxla nga wax ko saa sëñ tuwaa masaa gi ni njaañi naar yi day mil néew xiin ndax am naa dafa forox bu ko defee seen njañ yi dam koy seen mel ni xiin ku ne yaa nga yor laaya joo xam ne da wax ne laaya ji su ma dee moom lay wax ak sëñ Tuubaa sama soxla te bu sa baat di tontu baatam di baatam di jóg te boo doon tey jii fii ko mën a wax soxlaam ci alxuraan ci lu dul mu teeylu ko jàng ko doo ko si waxuma laa di ca tontu am na bis boobu dafa génn am naar bu ne inna haula yuhibuna alhaaji la fekk naar bi dafa jëm jéem a dugg mun la dugg mu xat lool mu daal di wax ne inna haula yuhibuna alhaajila sëñ Tuubaa ne ko man kaana yuridul aajila te ajjal naa ko naar bi daf ne ku bëgg ku ko gaawe ngi fi sëñ Tuubaa wax ne ko fii ku fi bëgg ku la gaawe ñu daal lay gaawe te danañ ëpp junniy naar ku ne da ngay rek laay ji nga xam ne moo tolloog sa soxla